mbokk yi ñu sant yàlla bu baax yàlla mi nga xam ne moo bind lépp tànn ci lim bind nag yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tànn li neex ci lim bind ñu ngi seede na yàlla moom xamul ndend xamul kenn ko jara jaamu kurul moom muy yàlla noo muy allah ñu ngi seede ne sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayidina muhammad sallallahu wa sallam ab jaamam la ñu ngi seede ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab jaamam la yàllaa ko tànn yàllaa ko sellal kon yal na yàlla julli ci moom te jëgg ci moom wa ala alihi wa asaabi wa sallama tasliman mbokki jaami yàlla yi yéen jaami yàlla wala ñun jaami yàlla léegi ñu xam ne ñu ngi ci weer wu tedd ñu tuddee ko weeru koor innakum alaan fi shahri nasimin wa mawsimin karimin ñu ngi ci événement bu tedd bu sell bu laab boobu événement mooy lan mooy weeru koor weeru koor bi nga xam ne yàlla moo ko jagleel moo ko def jagle ci mboolem weer yi moo ci tànn weeru koor màggale ko noonu te bëri na ay xasaay te dañ ci yëg si bi fadaa ilil hasima yoon yoon dooneel yu bëree bëree bëri nekk ci biir weeru koor te nekkul ci beneen weer yàlla mi ko tànn nag moo ko def loolu mina annaha jaala siyaamuhu ahada arkaanil islaam premier weeru koor yàlla def na ko mu nekk benn ponk ci ponk diine yi ponk diine lislaam yi yàlla def na weeru koor benn la ci ponk yi jagleel ko nag koo xam ne fil iftaar fii kenn kenn kenn mooy ku ko mu dogg ci biir weeru koor lu may ñii muy bëgg a al musaafiru koo xam ne dafay tukki yàgg na ca tukki ma wala tukki ku nekk xam na ne yonent bi nee na woon safar xitaatun min al xasaab metti na bañ tuddee ko ne mbugal la weeru koor woo nga jóg di tukki te xaw a foo jëm tukkeeb safar yàlla may na la nga dagg ca wala ku feebar door nga ba ngoon wala feebar nga mënu la yàlla may na la nga dagg ca kon weer woowu moom la ko jagleel beneen weer jegleelu ko ko ala taqdi kulli minuma waaye nag dafa wax it ñaari bis yooyu muy kii tukki wala ki feebar dana fay weer wi dana wote bis yi mu xam ne dagg na ko dana ko fayat wata fi shahr aaxar ci beneen weer su jëkkee boxori na ko fay fa man shahida minkum shahra falyashumhu alquran loolu wax bu fekkee ne teew nga dara jotul la nga gis weer wi ne danga mun xooram fa man shahida minkum shahra yéen ñii ne ay jullit ngeen weeru ne tëll ñu ne weeru koor la waral loolu lay la wax fëlli sumu waman kaana maridan su fekkee nga feebar nag yàlla tegul kenn lu mën aw ala safari wala ngaa nekk ci tukki ngay lim yeneen bis yoo xam ne du weeru koor boo jekkee bañ xori nga seet bis yi nga xam ne xooroo ko nga xoor ko faydata min ayamin uxra yàlla moomu def loolu dafa bëgg ci jaami yàlla yi yërmande dafay xoyofal du dafay diisal yuridu lahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla dafa day jàppandal ci nit ñi pour diine ji diine jàppandal du diine ju mbugal wala diine ju jëfeel wala tukmilu idda soo ko defee nag fan yooyu nga xam ne danga ko xooroon danga ko dogoon eh, na ko fay ci beneen waxtu woo xam ne du moom bu jotee na nga ko fay ba mat wali tukabbiru allaha ngay tudd yàlla lu bëree bëree bëri du na weeru koru dee jeex rek nga dagg ko déedéet diyal jaamu yàlla di fàttaliku yàlla tudd yàlla lakum tuskaruun ndax mu sant leen almaridu wa kasaalika abaaxal fitri lil kabiiri sinni koo xam ne dafa dem ba ay ak magam bëri na ay xatam bëri na mënatut kooku it yoon may na ko na dog kabir sinn laa yastatihu siyaama koo xam ne dem na ba mag mënatut xoor wala almaridu maradan laa yurja shifaauhu ki nga xam ne dafa feebar bee dafa waxoon ne feebar moom dara jotu ko dafa feebar kii nag dafa ñëw feebar la boo xam ne yaakaaratu ne dana wér wala yaa feebar bii moom mënatu mu dem ne bii feebar du feebar buy wér kii dafa feebar feebar la rek bopp buy metti denc mu fekk ko ci bis bi noddo bii nag dafa dem ba yaakaar ne feebar feebar bii dafa takkoog muus mi ne la duhutul lu wér kooka yàlla may na ko na dagg di def muuram koor du li ñu fay da def muuram koor jeex na maradon laa yurja shifaahu wala yastati maahu siyaama lii mun taxand moo tax yàlla ba ala an yutima badala kulli yawmin nga bis bu yàlla sàkk nga seet am miskin jox ko miskikihim nga dëggalee ko ko qaala taala wa ala alladina yutiquuna fidyatu taami miskiin ñi nga xam ne ben dañoo dem ba gëm ne mënatuñoo xoor ñu tànn ne ko nañu itam maanaam li xal miskiin bu boobaa ñooñu tax ñu wax fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun lahu soo demee nag di ko dem ba mu nga gëm ne rek mën naa ko man tatawaa xayran fa huwa xayrun lahu boo gëmee ne mën nga ko yaa defal wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum taalamun soo yoree gën bokkoo na ci jagleel ramadaan yi dafa am ay jagleel xam ne ci weeru koor dong la xam amul ci beneen weer bokk na ca shahru ramadaanul mubaarak masruiyatun salaati tarawih fihi julleeg tarawih naafile yi ñuy def ci weeru koor bi def ko jamaatan def ko ci mbooloo ci fil masaajid mu ne ci loola day ci weeru koor dong la xam lu weeru koor kenn musu gis fu ñu taxawee di def ay naafila di ko jiitee def ko mbooloo comme julli farata amu ci ci xasa ci ramadan rek la ko yàlla jagleel kon ñu di ci bàyyi xel ku ci xamul ngant wa naafila jotee na nga ñëw nga naafila te xam ne yool bu rëy ngi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na man qaama ma al imam ata yatasarrafa katabaloo qiyaama laylatin képp koo xam ne dangaa dugg ci jàkka ji xànd ak imam imam nekk fi jiite bay jugee ba pare bay ñibbi mu ne yàlla bindal na la yàlla bindal na la guddi gi lépp naafila nga ko qiyaama laylatin waxee sunnatun mu akkada du farata sunna la boo xam ne yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi moo ko sunnaal moo tax ñu naan sunna mu akkada sanna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam وأيما عليها المسلمون لا ينبغي للمسلم تركها بن جلد وركوبة heure loo mën a def bu naafila jotee ñëwal nga naafila boo xamul benn ngant ko am ngant nag gannaaw farata boo amee ngant ba ko waxuma laa nag sunna yuharrimu nafsahu min sawabiha mën a xamul benn benn njulli boo xam ne war naa mën a xañ boppam yool bu xem nii nga xam ne yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa لا ينطق عن الهوى وواجد إليه ومن خصائص شهر رمضان بوكونا تي جاكليل ويرو كور باتاي انه تضاعف فيه الاعمال الصالحه بوكونا تي بيب جيف بو جيف تي مو خم غاي صدقه مو خم غاي جام جولي مو خم غاي جانغال القران لب بيب جيف بو خم صالح لا يالا داف كوي اضافه مانام داف كوي ملتيبلي تي لب لو خم ne moom la farida wahida فيها تعدل سبعين فريدة شوف كيف فرطة جدف جلي فرطة هو بلين كوي ملتبلي جروم نار فك درجة موم لين كوي ملتبلي عندك بروم كيف فرطة أما نافلة فيه تعدل فريدة نافلة جي موم كلين كوي ملتبلي كيف فرطة فرطة فرطة لين كوي دف نافلة كوي دف جابين لين كوي فرطة لا فرطة كوي دف سبعين درجة لا كون واخ دقيالا بني نيو لين نيو نافلة ko këpp ku nekk war naa daw gannaaw boo naafila ñu jox la tabin daraja benn rakk boo def wala loo def ci jëf lu baax yàlla defal la ko loolu kon ñu di ci sonn bu baax ndax alquran kat moo wax ne shahru ramadan alladi unsila fihi alquran hudan leeru koor bi ci lañu wàccee alquran alquran jooju lu tax ñu wàccee ko jub jub caaxaanuñ jub jub na mooy ngay jaamu yàlla di def lu baax waaw nekk ci li yàlla gërëm wala nga jéem cee ne mën ngaa ne loo xam ne de yaakaar nga ne yàlla yàlla suñu jëf de daje ngërmanal yàlla yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def hudan shaaru rab allati rab allati unsila fi alquran hudan linnaasi wa bayinaati min alhuda te daf lay tegtali lana njubit dee leen jege imaam yi tey jàng di jàng alquran wal quran fa man shahida minkum shahra képp koo xam ne dangaa fekkee yàlla may na la nga wér ba fekkee weeru koor palesum na nga woor waaye nag koo xam ne dangaa feebar woon kaana marid aw alaa safar dangaa feebar wala yaa ngi yoon yaa ngi ci yoon di tukki fala fekk wéroo yaa ngi ci avion wala yaa ngi ci leneen tukki nga tukki boo xam ne tukkim safar la ah, na ci mu ne bu boobaa nga dagg aw min ayaamin uxra seetal toogal ba mu xori fayal biir ya nga xam ne nekk feebar wala bis daf laa fekk tukki nga contribution lu met boo dekkee ba xori nga fay ko contribution leen ni la nga leb ay amoon yox yuridu laa bikumul yusra wala yuridu bikumul yàlla bëgg leen a mbugal dégg àlla iddata wali tukabbiru wala ala ma adakum wala lakum tushkurun bokkoo na ci jagleel rem weeru koor nga xam ne xamut ci beneen weer ci weeru rek la am shahru ramadanul mubarak kafaar laylatul qadar laylatul qadr xamul ci benn weer lu may ci weeru koor dong la xam yàlla moo wax ne nawahu laahu bi shaniha wa axbara annaha xayru min alfi shahr laylatul qadr yàlla moo ci jël nit ñi te moo wax ne benn guddi boobu moo gën mille guddi alfu shahr mooy mille weer sax la waxu guddi booy jël weer benn weer weer di ko compte ba mat junni gude gudde laylatu qadar moko gën yonnati bi alayhi salatu wassalam moñu wax loolu kon bokku na ci tibi yonnati bi xasaisi weeru koor laylatu qadar gi nga xamne mo mu ngi ci biir te mo gën mbolem layli yi wa axbara annaha khayrun min alf shahr liman wa xaali al amal salih kep ko xamna nga ci nga ko dak ba yalla dajalo ci laylatu qadar gogo ci jëf ju baax yuaddilu salaasa wa thamanina sana ndax salaasa wa thamanina waa aman boo ci defee benn mën a jëf jooju dana méngoo danañ ko mën a mandarge quatre vingt cinq ans quatre vingt cinq ans kon di foog ni yonent bi daan def faraan foog di def lu ne pour bëgg daje guddi google daaw ci nelaw thamanina aman xaddaha muslim bi taati wal amal juróom tamanin xam sama tamanin sama yoo xam ne yaa ngi ko doon jaamu yàlla guddi bëccëg te yàlla nangu ko bis boobu rek boo dajee moom xam nga lu xem ne la fadlun asimun wa haadihi layla la shakka fi shahr ramadan li anna laha axbara annahu unsila fi alquran bis bii munta ñàkk munta ñàkk ndax yàlla ci boppam moo ko tànn moo ko tànn moo wax ne na ci la wàcce alquran fi fi shahr ramadan yàlla moo wax ne moo ci wàcce alquran dafarnana ina anzalnaahu fi laylatil qadri yàlla moo wax ne alquran yii maa ko wàccee ci guddeeg laylatul qadar moo taxoon yonent bi fa ko daan def lu ne di ixtikaaf di def ci lu ne pour bëgg a dajeeg guddi googu te it di ci yejji nit ñi itam ñu góorgóorlu ci ndax ñu dajeeg moom genn guddi goo xam ne moo gën alfa shahar wax dëgg yàlla du naa waxaat yemut foofu mu waxaat feree ne ina anzalnaahu fi laylatin mubaraka kon laylatul qadar ku ne xam ne layla guddi ndax gu ببركة لا لأنه إن أنتنا في ليلة القدر دلتنا في ليلة مباركة قد الله كواتي بان قد قد ليلة القدر قد ببركة إن أنتنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين نك رك دي دي دوار نيت نيرك pour bëgg rek ñu dem ci lu baax mu waxa yemu fofu da waxa na ne shahru ramadan allati unzila fi qur'an wa fi laylatul qadr وشهر رمضان المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإذا جمع بين الآيات الكريمة بن بولي نيت آية إنا أنزلنا في ليلة القدر إنا أنزلنا في القرآن العزيز بو بولي نيت آية تبين أن القرآن أنزل في ليلة القدر داغا فك ن لب القرآن لب جي ليلة القدر لا وشهر رمضان المبارك فكان هذا شهر مشتملا على هذه الليله weeru koor dafa lamboo leen guddi yi yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam kon nañ leen ci góorgóorlu bu baax wàññi nelaw yi lekk gu bëri gi def ko foog topp warsab yi nga xam ne laa yus min wala yox ni topp rek ci di rek di rëdd di seetloo du gis mukk mooy téléphone yi ñu yore yàqal la jaamu yàlla yàqal la jàng alquran yàqal la wéetal sa borom kon nañ ko bàyyi mu ne la guddi gii da ci xamee lu ne ci àddina bi guddi gii yàlla moo ko tànnal boppam guddi gi yonent bi fa ci daan toog ba bët set bon kon gannaaw guddi googu na yàlla fa tànn weeru koor def ko ca kon war nañoo xam ne weer wii du weeru caaxaan ñu góorgóorlu ci li ñuy rëcc ñu dabaatal ko ci liñ bëgg ñu di ko ci wut mustamilan layla haati layla tuaddilu fi xayri umrin tawilan yàlla def ci def yastanfitu daa wa qad axbara nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moo ñu waxal ne ann haatihi layla fi shahri ramadan كان يتحراها فيه من يونت بي جي بابا ما واخنا لا غود جي موم فدان توك ديكو داك رك يتحراها دي جيما تاك دي دي ديكو جيما تاك لان لا فان لا داو نلو كون غنا نين يونت سي بي موي سو نيب يونت تي موم لان توك ني غور غور بوين مانا ديف لي موميت ني جيما روي لام دون رك انا سي في شهر رمضان كان يتحراها ويتحيد دف دان في غور غور لول في قيام الليالي allati turja fiha guddi yi nga xam ne fa yaakaar ne ci la ñëw saa yu yaakaar ne guddi gi guddi googu du nelaw te taxit guddi gi mu ne guddi gi mooy guddi yi la leen xar na ñëw li ñuy wax noonu fi saabiatin tabqa fi saalisatin tabqa fi nangam nangam ñetti guddi yooyu yonent bi musu ko nelaw làmbatu rek ba xam ndax dana dajeeg moom ak ñi mu baaxee nga xam ne yonent bi yàlla moo ko wax na ko jégal إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك له ما تقدم ما تقدم من ذنبكم وما تأخر يتيمنا ودع لك ويهداك صراط المستقيم كل لي سخنا لك يا الله جخنا كوك واي تره مغاي فن تيوت واي واي من دفن مام لي مي سخنا لك يا الله واتر لك ونال جخنا كوك واو مبرت اللور تره اير بو بودي يجو دي مم فايت فنال توب بسيط بلا مبرت خرد بلا بجيت بودي xam naa bu ko defee itam ñun la bëgg xettali ñu roy ko ndax ñu xam ci li xam buñ ci mën dana am ñu góorgóorlu ci bu baax a baax alati turja fiha way way atakifu ayaamaha fa daan def ixtikaaf rek du lekk nekk ci néeg du jóg mukk ayaamaha wa kaana sahabatul kiram yaxtadoona bihi ñoo sahabaam yëpp dañ ko daan roy bis yooyu bu xësaa ñëw ومن خصائص شهر رمضان بوكنا تي جاغليل ويرو كور وي ان الله نوا فيه الخيرات يلا داف ني سينالي اي مبوت يو بري بري بري اي خيرات يو بري بري جام يو بري بري يو بري هو شهر اوله رحمه وير لا بو خمنا برومير يرماندي لا باجا واوسطه مغفره ديغ ويروي نيغل لا با واخره عتق من النار بو ديمي باغا خامني جيخنا دارا ديفيتول يا الله لي دال جيغل لب جيغل سي سفر واي موني عتق من النار فالرحمه بوكو ديغي للمحسنين المتقين سن بروميير وير رحمه لا رحمه كان للمحسنين المتقين محسنين يغا خامني نيغي خامني ديمبل نيت ني دي ragal nañ yàlla man kat lii ma nekk nii tey tey yàlla mën na ma fee jëlee ragal nañ yàlla bu xam ni démb laa nekkoon ak sama morom suul nañ ko ta ci kon maa fi des yàlla moom malaaka mi mu joxoon kii bu bu ci sotee rek kenn ci ñun la tànn kan la ragal yàllaa ngi noonu nga seet sa digganteeg sa borom looy def rek xam ne moom moo la samp moo la def mënoo koo nëbbu mënoo fa def lu mu déggut mënoo fa def lu mu gisul ñu ragal ko kon moo tax mun a raxma boobu nag lilmuttaqin lil muhsinin almuttaqin wal maxfiratu maxfira bi ñu ko moom lil muslimin almufritin ñi nga xam ne dañoo dëkk rek nuur rek nuur ci mbon rek nuur ci mbon rek nuur nuur ci mbon rek ñooñu ñoo moom muslimin bi moo tax moo ne an lil muslimin almufritin equ min a naar kan la ñoo ne ko moom lil mustawjibi duxulu naar ñi nga xam ne dañoo dem ba yàlla jëpp leen bind ne ñii ñoom dañoo war a lakk safara lañ war a jëm su boba ñoña ñoo mom itku minanar yàlla daf leen di gorel ci barke weeru ko ci barke bi yoonte bi dañ leen di gorel ci safara yow kama fal الحمد لله الذي أمرنا بتقى وابتقى وسيله وحدنا على طلب الدرجة الرفيحة له والفضيلة أمرنا أمرا بدا فيه بنفسه وارسلنا بملائكة قدسه وسلس بالمؤمنين من جنة وإنس قال تعالى إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رواه عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه بها ألف ومن صلى عليه ألفا سامر كتفه كتفه على باب الجنة وعليكم بالإكسار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 دمر أعداء الدين يا رب دمر أعداء الدين واكتب سلامة والحافية لعبادك المؤمنين ونجنا من كل بلاء وربا وخلاء وتاهون ورد وسنا وطهر من جميع ذلك بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة يا رب يلا يلا دفل لبو بريوي رواتنا السنغال yal يلا yàlla السنغال جي Sénégal gi يلا yal السنغال جي def ci يلا gi السنغال جي na yàlla na yàlla defal sutura lépp loo xam ne ñu ngi koy def di ko sàkku sàkku ci suñu borom suñu borom xam na ko mu ngi ko denc te mooy wax naan nañ ko ko ñaan yàlla na yàlla defal jàmm palaar bii ñu taxaw itam di ci julli ñu ko jàpp yàlla yàlla jàppalal borom yàlla yàlla rek la ci hut yàlla rek la ci hut hut yi ngeen mën a kenn bëgg sax koo tudd yàlla yàlla fay ko yàlla moo ñu taxawee fii ñun ñëpp ci bëccëg ramadan bi ak ci yokkaar yàlla na fay lépp yaa rabbi yàlla na defal jàmm yàlla def jàmm ci réew mi yàlla def sutura ci réew mi suñ mbokki Palestine yi nga xam ne ñu ngi ci coono yal na yàlla génne leen ci ci nu mu gën a raaye rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l axira xasanatan wa qina azaaba naar inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم قوموا إلى الصلاة الحمد لله البديع الأكرم وسلام